waaw ñaari ponk yi bu njëkk bi mooy euh, élection yi nga xam ne passé nañ ko muy élection législative yi amoon le 30 juillet ñu amoon yéene ne même teel a rassembler nit ñi remercier les militants mais waxtaan ak ñoom aussi euh, ci bilan bi nga xamante ne moom la ñu liggéeyee boobaak léegi aussi préparer aussi élection yi nga xam ne moom la ñu jëm en deux mille dix neuf mooy élection présidentielle yi pour que aussi vraiment ñu gën a dajalewaat suñuy suñuy militants gën a waxtaan ak ñoom mais xool aussi côté yi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñàkk ko lan moo tax ñu ñàkk ko ak lan la ñu war a mën a def pour que yooyu ñu mën ko récupérer waat dugalaat ko ci suñu biir compte. mais sama lan ngeen gis ne looloo tax ba xëy waaw li ñu li ñu gis mooy wax naa sànq ne. am na ay événement yoo xam ne amoon na fii à Kër Moussa mooy événement wu tool naar bi yenn politiciens yi profité ci nos adversaires je veux dire profité ci pour que euh, joxe des fausses informations yoo xamante ne yóbbe na nit ñi loo xamante ne après les élections bari na ñoo xam ne sax regretté nañu pourquoi ñoom ñu doxale woon noonu parce que aussi euh, loolu bokk na ci facteurs yi nga xamante ne jàpp naa ne euh, tax na ñu perdre élection yi je dis au niveau de Kër Moussa village de Kër mais dans les autres villages c'est pas euh, situation bi demewul noonu beneen bi mooy élection yi dafa ñëw aussi liste yi bari avec 47 listes euh, am na ci yoo xamante ne sax nit ñi da ngay xool ni ñuy defee erreur ci ni ñuy voté ñoo xamante ne li ñuy def sax xamuñu ko loolu bokk na ci li nga xam ne beneen la ci et troisième bi nag am na ñoo xam ne peut-être nanguwuñu ko mais man dama koy accepter Euh, parti boobu ñu wax PUR dafa def percée bu am solo ci suñu commune parce que dañ fi bari quoi qu'on dise rawatina fii au niveau de Kër Moussa la aussi il faut ñu reconnaître loolu parce que nit ki am na loo xam ne boo ko bëggee faj da ngay dem xool ko ba xam ne lii la nga jéem seet noonu nga koy faje voilà bilan bi ak euh, année sociale bi lan ngeen ci. waaw année sociale bi aussi liñ ci fas yéene mooy comme ni ko président waxee rek. fexe ba néew ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ngi leen di mën a jàppale li ko tàmbalee ci bourse sociale yi carte d'égalité de chances ak yeneen yoo xam ne seet nañ ne war nañ ko mën a jàppale population yi vraiment ba ñoom itam eh, ndóol gi nga xam ne ci la ñu nekkee mu wàññeeku rawatee ak jeunes yi man damay wax toujours ne te dama koy wax ak euh, sama président commission yi ne leen jeunes yi ñu bàyyi rek di ñëw di finance ay nawetaan rek nawetaan parce que man gis naa ne xaalis bi ñuy def ci nawetaan on m'a dit que cette année on a fait plus de douze millions yoo xam ne yëpp dem na ci nawetaan je ne dis pas que waruñu ko def mais est-ce que yooyu mënul woon financer ay projets yoo xamante ne demee jeunes yooyu mën nañu dem ba ñu demal seen bopp di autofinancer seen équipe. dama dem ba parce que benn équipe bu ma jëloon tey benn ASC naa jël ASC Kër Sega je donne exemple mu ñëw ñu fexe ba financer ko à la hauteur de deux millions. ñu fexe créer ci benn benn benn euh, comment dirais-je la benn projet boo xamante ne. dina mën a may. ñu gérer ko di ci liggéey dina dem ba ASC boobu duutu ñëwati ci maire di solliciter benn jeu de maillot duutu ñëwati ci maire di laaj ay subvention je pense que ñu ngi ciy xalaat ak samay commission pour que ñu xool nan la ñu war a mën a def ba jàppale jeunes yi ba ñu mën a am ay emploi c'est plus important que ñuy def ay financement yoo xam ne chaque année dañuy dem di répéter. monsieur le maire Momar Ciss bëggul non deuxième tour moom bëgguma sax ku koy wax déggoo sax ma wax ko fi. man damay bañ deuxième tour. parce que je sais très bien que ne man je vais gagner dès le premier tour. kaa moom vraiment en terme d'infrastructure mën nañu wax ne tey euh, dans la commune bu fekkee ne jël nañu wàllu éducation def nañ ci ay efforts yu bari. ndax wax naa leen léegi ne ubbi nañu fi benn nouveau lycée fii au niveau de Kër Moussa tabax nañu fi une deuxième école élémentaire si fond si sur fonds propre nag. Euh, la deuxième école élémentaire nga xamante ne indi woon na fi ay problèmes yu bëree bëri ci biir dëkk bi le moment où je vous euh, école bi tabax nañu ko pare na équipé nañu ko il ne reste que peut-être quelques réglages pour que ñu mën a rejoindre foofu. beneen bi ci topp aussi wàllu santé yaakaar naa liñ ci def bëri na. bari na bokk na ci ren eh, actuellement poste de santé yi fi nekkee am nañu ambulance ñu ngi yaakaar jot beneen ambulance boo xamante ne dafay nekk réserve pour que yenn intervention yi mu mën ko def ak beneen corbillard boo xamante ne c'est pour évacuer le morts envers euh, les destinations électricité aussi tey bu ñu xoolee tra euh, damay wax toujours ne commune Kër Moussa bokk na ci rare commune yoo xamante ne tey te loolu mën ngeen ci def investigation ngeen gisal ci seen bopp fanweeri dëkk ak juróom benn tey mën nañu taxaw ne ñeenti dëkk ñoo ci amul courant néew ma doy na nag parce que courant boo demoon Dakar sax am na koy koñ yoo xam ne amagu fa te loolu nag vraiment réussir nañu ko tey ñeenti village la ñu dese te ñeenti village yi sax ñi mën naa taxaw wax ne avant ñuy yegg ci date issue comme ni ma leen ko waxee woon fële ca site de recasement bi dina fekk ñoom ñu am seen électricité voilà. seen taxawaay si bindu liste électorale waaw bindu liste électorale yi ñun vraiment dañ ko defoon euh, dañuy pour def politique. en permanence toujours ñu ngi ci politique bañ ci commencé liggéey du tey mais officiellement mbindu mi dina dooraat le 20 d'ici le 20 aussi mobiliser nañu suñuy troupe am na ko ko wax sànq du question ay moyens parce que prépare nañu ay oto village bu ci nekk bu laajee ñu transporter leen indi fo indi leen pour ñu ñëw bindu parce que li am solo nag mooy que nit ñi dem bindu ji dem bindu ji ñi war a retirer seen carte aussi retirer seen carte problème mu retirer carte boobu aussi dinaa ci ñëw dafa poser problème te yooyu ñu ngi ciy taxaw pour jéem ko régler li ma ci bëgg a wax tey gis naa carte yoo xamante ne au niveau de Sébikotane mais Kër Moussa la bokk te Sébikotane région Dakar la donc te loolu dafa bari fu muy amee moo tax loolu ñu ngay laaj les autorités étatiques pour que ñu taxaw ci pour que nit ñi aussi mën a jot seen carte parce que nag balaa nga ne naam ne. en je rends grâce à le Tout-Puissant euh, d'avoir nous donné la force de revenir aujourd'hui euh, presque la totalité de nos villages. Euh, l'Assemblée générale d'aujourd'hui euh, d'abord évaluer et remercier nos militants euh, pour les élections législatives passées et de voir aussi les perspectives pour les élections à, à venir, c'est-à-dire les élections présidentielles de mhm. vous avez gagné certes lors des législatives, mmh. mais vous n'êtes pas très content puisque vous avez perdu 13 mhm. sur les 50. Oui, Vraiment, ça, je le déplore. Pourquoi Parce que moi, pour ceux qui me connaissent, je suis un gagneur. Je ne crois pas à perdre des élections, surtout de cette nature. Raison pour laquelle euh, nous avons convoqué aujourd'hui pour essayer de diagnostiquer et de voir euh, quels sont les facteurs euh, qui nous font perdre ces 13 bureaux de vote et de voir aussi les prochaines élections, les prochaines élections pardon, pour que euh, ce, pour qu'on puisse rectifier le tir Euh, pour gagner largement vraiment pour les élections de 2019. Qu'est-ce qui n'a pas marché Bon, si c'était un vraiment je ne battrai campagne. Parce que comme je l'ai dit le plan d'électrification rurale, je crois bien que la commune de Kermoussa fait partie des rares communes qui ont plus euh, de, de, de, de, villages électrifiés. Parce que sur les 36 villages, il n'y a que 3 ou 4 villages qui restent pour le moment et qui sont en projet. Euh, en ce qui concerne le plan éducationnel, je l'ai dit tantôt, euh, nous avons deux collèges, de deux, de deux collèges dans la commune. Et cette année, nous réussi aussi à ouvrir euh, un lycée. Euh, L'année prochaine, on va essayer encore de construire deux collèges de proximité. Ici à Kermoussoya, une deuxième école déjà construite qui devait être fonctionnelle euh, au cours de l'année, au cours de cette année. Pour les étudiants aussi, comme je l'ai dit tantôt, nous avons euh, fait un effort parce que pour loger des étudiants à Dakar, ce n'est pas une chose très euh, facile quand même. Mais nous avons pu euh, loger ces étudiants, ces étudiants pour deux, deux... trois immeubles. Hein. On m'a dit que c'est pour trois immeubles euh, euh la commune débloque chaque année plus de 8, 8 millions pour payer les loyers. Je, je, crois que euh, vous êtes des journalistes. Jamais on entend des étudiants de Kermousse plaindre au niveau de Dakar pour, leur, dire que nous n'avons pas payé nos logements, on nous a expulsés ou on menace de nous expulser. Monsieur le maire, perdre le chef-lieu de commune également, c'est symbolique. quelles sont les véritables que les véritables raisons, on l'a dit. Euh, au courant de l'année 2016, il y a de problèmes ici à Kermoussa, en commençant par euh, litige foncier qui avait opposé la population au filfili, ce qui a provoqué de quelques jeunes dans cette, dans cette localité. Euh, ensuite, euh, euh, il euh, le phénomène des partis politiques, comme vous le savez, je crois que plus de 47 listes dans cette communes c'est dans, dans, dans, tout le pays. C'est inédit. Euh, des communes comme Kermoussa, nous en eu beaucoup de conséquences, avec aussi, il faut le reconnaître, euh, la percée du pire, euh, qui est venu deuxième. Donc il ne faut pas le négliger, bien que des gens euh, ne croient pas que c'est à cause de pire euh, que nous n'avons pas perdu, mais moi je considère que nous avons perdu à cause de pire. commerciale sera fortement ressentie oui. oui. Bon, en quoi faisant, c'est les bourses sociales, comme vous le savez, les cartes d'égalité des chance et les réalisations. Être toujours auprès de ces populations pour les accompagner dans tous leurs projets. Essayer de trouver aussi l'emploi pour les jeunes. Parce à chaque fois, je l'ai dit tantôt, euh, les jeunes, on croit que leurs activités doivent se limiter au marché de navettanes et autres. Mais moi, je vois autrement. Essayer de créer des emplois pour cette jeunesse, essayer de créer, euh, comment dire encore, euh, des choses qui peuvent euh, leur procurer des revenus euh, pour que ces jeunes-là aussi soient vraiment dignes et pour que ces jeunes aussi trouvent quelque chose à faire. way pour l'acquisition Là aussi, euh, sur le plan santé, je l'ai dit tantôt, nous avons deux ambulances parce qu'il y a deux postes de santé à Kermoussa et à Soun. Chaque poste de santé est doté d'une ambulance médicalisée. Et j'attends bientôt aussi l'arrivée d'une troisième ambulance qui sera, qui sera une ambulance itinérante, comme je l'ai dit tantôt, pour des interventions et, et pour euh, euh, transférer nos morts. les inscriptions Pour les inscriptions, bientôt, nous avons mis en place des équipes très dynamiques Euh, qui, qui a commencé déjà à fonctionner en attendant que l'ouverture officielle des inscriptions vers le 20 de ce mois.